asalaamaaleykum mbokki ndar mbokki Sénégal ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen gërëm di leen wax ni vraiment yéen a ngi si seen émission Saint-Louis TV baaru comme ni nga ko daan defee. ku doon nelaw na nga ay ku doon taal na nga ay ku jàppoon na nga bàyyi ay ku doon nelaw na nga yeew ay ku doon taal na nga tee ay ku jàppoon na nga bàyyi ay ku di leen wax ni yéen ak seen émission tay mu neex euh, fii ci Saint-Louis TV Birame nag tay kan la dal. waaw dama ni tay jii nag danoo am gan gu rëy balaa gan gi baaw dañuy siyaar mbokki ndax di leen bëgge bu baax a baax a baax mm. di siyaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu ay naataangoo ñi nga xamante ne mm. a baax di a baax baax di siyaar ki nga xamante ni mooy Abdou Diop di ko siyaar di siyaar Ahmed di siyaar ki nga xamante ni mm-hmm. mu ngi mooy ñaari njaay ma mm. Ba bu a baax ak ni ndeysaan moom mooy suñu jigéen ja nekk ca Euh, ñu la fente si ta neex ñu koy mm. wax ki nga xamante ne moo di Ami Mané mm. ndeysaan di siyaar ki nga xamante ne ndeysaan mooy Jibi Sey moom digoon nañu montre ba tey digu ba tey joxagul mm. ko di siyaar bu baax tamit ki nga xamante ni euh, ndeysaan sa dëgg-dëgg euh, moom mooy Tafa Touré moom nee na incha allahu rabbi korité gi moom moo ñu jox yére ñuy korité di bégg bu baax a baax Abou Bilal moom nga xamante ne macha allah moom it di sunu nongo ah, ñoo ngi siyaar baax ah, suñu taalibe suñu taalibe boobu Abou Bilal waaye bi dalal la koo xamante ni kan la ñu dalal biram tey. waaw dama ni jamono buy dox da dox ànd ak moom tey nag ku nu dalal xam ngi nekk ci weeru koor te weeru koor dafa sell. Hmm. te booy nekk ci nii. Hmm. Euh, dafay ñoo xamante ne dañoo sell 7 8 100 saali du ñu sax bay sof kenn. ah te nag ki ñu indi mooy soo xamante ne la euh, dañ ne tunga ne kat du teew ñu dara Soxna Seyda moom ñëpp xamoon na ni kooku euh, nit ku bonoon la woon ku torox la woon caga bu mag la woon. Hmm. amoon kàttam ndeysaan di cagatu fu ne. di joxe boppam l'est l'ouest nord et le sud. waaye nag tey jii dafa soppeeku macha allah moom la ñu dalal fii ci plateau bi kon nag dañuy daal di dem dalal ki nga xamante ne mooy sunu gan gi di soxna Seyda. comme ni nañ ko waxee sànq euh, tey nag dañu am gan gu rëy gan gu mag muy euh, euh, soxna Zeynabu ñu koy wax soxna Seyda soxna Seyda Mbay mu doon nit koo xam ni ku yàlla baaxal la ci ci diine ndax démbam ña ko sonn lool. tey itamit mu ñëw ak beneen xar kanam bu bees soxna Seyda ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. soxna Seyda alhamdulilahi rabil aalamiin ndax soxna Seyda ñëpp xamoon nan la.

ci la xam ni léegi nag war na mën a nekk responsable boppam moom soxna say daal war na jël capital boppam maanaam war na jël yoonu boppam daal di su dugg ci mbirum caga di ànd ak ñoom ñoom Zalle ak ñoom Bidaas ak ñoom Jean Le Kelf ay doomaraam yu mag lañu woon ñoo xamante ni dañoo beroon seen seen daara doon toggal seen bopp ci mbirum bonte moom soxna daal ci gang boobu la bokkoon moom nag mu ñëw nekk seen caga ba mu commencé. Euh, mu ngi am 18 ans ci njëriñ bu njëkk ci ka njëkk a tëbu daf ko lebal parce que doon attirer client. léegi fayagu ma. ba léegi ba tey ngeen fayagun ko. donc bu doon jaar-jaar boo xam ne jaar-jaar du la bu ñii tëddeeg moom duñ ko fay ñii dañ koy leb te duñ ko fay ñii dañ koy sàkk ba pare jël li mu yor daw ak moom mu doon loo xamante ne lu métti la lu sonn la. soxna Seyda caga de neexul. Ah, ma daan def yu bon daan wax yu bon daan ka dëkkee ba nga xamante ni dëkke naa loolu ba yàgg ma am arrière pensée sama xel ni man lii ma nekk baaxul te deewa ngi ñëw waaw ndeysaan yéen a ko déggandoo nee na dafa toog xalaat ni euh, bés dana ñëw te dee dina am nee si lu tuub daal di delluwaat suñu borom balaa ñuy ñëw ci euh, jëf yu baax yi dañuy dellu ci jëf yu bon yi euh, yow soxna Seyda fan la daan tëral. kon daal yow euh, moo du xeet nit bu nekk tëdd na tëdd nga moom. ku ne. yow yow nag euh, dama lay laaj euh, ci ban ban ban tëddëf ci ban ban bis nga mës a tëdd. jug gis sa yaram mi daggatee wala fu na tëral am na ñoo xamante ni ci ay taabaru marché la leen di tëral ay porte di leen jàmm. donc compte yi du dugg seen taaj am na ñoo xamante ne euh, ci fu ñuy fu ñuy waasee jëm ci ay waasin tool lan lay tëral euh, waasin tool yi di dugg seen seen seen seen euh, di jàpp seen seen seen seen taaj am na ñoo xamante ne ci ci ci ci boor dex yi amoon na benn histoire bu ma mosoon fekkee kooku dañ ko tëral ci boor dex yi mbaal mbaal mbaalu jën mooy mbaali sew yooyu Euh, daal di daal di daal di laxas laxas euh, euh, ki ki ko tëddal daal di laxasaale moom karaw karaw karaw karaw karaw maanaam karaw yi nekk ci kanamam ndeysaan mu doon histoire bu tragédique ci tëraay boobu yow yow ban ban tëdd ban tëdd moo la mus a métti si tëraay yi nga tëdd yëpp. waaw tëraay yi ma mus a métti yëpp sama diiru dund mooy bis bi nga xamante quatrième jour bi may nekkee di cagatu. Mm. Daisy kanam yu metti sax fu ne ngalaab na ma fa moom ouvrier boobu. Euh, ban leçon de morale ngay lancé euh, ci ñi nga xam ni mooy sa mbokku cagay astafurlah nga baal sa mbokku cagay euh, ñi nekk ci mafia ba tey. Ah, xanaa. dina weesu dina fekk jëf wees waaw ndeysaan euh, loolu lu lu rafet la lool lu baax la euh, kii mooy euh, sunu invité tey bu ñu ngi fi indi woon muy Fandiaye yaa neex taat parce que yaa neex dama juum soxna Seyda soxna Seyda kàddu gi maa ngi bu baax a baax a baax euh, lii leen indi woon seen émission euh, Babou ak Birame tey mu neex euh, suñu invité bi ñu dalal muy doon Fandiaye yaa neex taat. du Fandiaye yaa neex. ki nga xam ah, dama juum ngeen baal ma dama juum baal ma ki nga xam ni moom mooy soxna Seyda ñu gën ko xamee ci Fandiaye yaa neex taat moom leen fi indi woon di leen jox di daje ba. soxna Seyda laa tudd ok jërë ngeen jëf lii lañ leen indi woon seen émission tey mu neex baabu ak biram euh, di leen siaat bu baax a baax di leen gërëm suñu invité bu mag bi euh, di euh, soxna fanda yaa neex taa